asalaamaaleykum mbokk Sénégal asalaamaaleykum mbokk waa àdduna bi yëpp maa ngi nuyu ku nekk si turam ak santam maa ngi tudd Babou Cissé HLM 5 délégué de quartier HLM 5A fii si Ndakaaru maa ngi chef de quartier HLM 5A. waaw loolu xanaa sant yàlla rek sant yàlla quoi parce que cas moom yàlla bu mu fi am yàlla bu mu fi am bon gars yi moom ñoo ngi wër di sensibiliser di def lu ñu mën. sensibiliser nit ñi pour wax leen gravité feebar bi fu mu toll ak feebar bi nu mu mel parce que soo gisee loolu soo xoolee àdduna bi yëpp feebar bi dafa tënk àdduna bi yëpp dafa tënk àdduna bi yëpp te feebar bu garaaw la te nit ñi fii am na ñoo xam ne ba léegi jëluñu conscience ci feebar bi fu mu toll ak nu mu mel moo tax ñu bëri nag dañ ciy sensibiliser malgré que marché HLM bi ak maire bi tëj biñ ko tëj loolu xaw na wàññi tamit kii bi trop parce que activité nit ñi xam nga marché HLM bi la woon moo taxoon ñu bëri doon dugg ci fii si HLM bi surtout au niveau des HLM cinq mais bi ñu tëjee marché bi ba léegi yenn activités yu bëri dafa wàññeeku fii activités yu bëri bi mu wàññeekoo nag donc di nga mën a gérer population bi de telle sort nga xam ne dinañ mën a jël seen prévention raxas seen loxo yi moytu regroupement yi moytu toogaayu mbedd mi ak moytu yenn nuyoo yi si mbedd mi xam ba pare foo tourné nag ci HLM bi di nga gis ku yoru gel di jox gars yi ñuy raxas seen loxo yi. waaw loolu dafa baax si population bi quoi xam nga loolu soo ko gisee rek automatiquement soo même soo jógee feneen soo gisee loolu sa xel dina demaat ci feebar même soo ko fàtte woon sa xel dina demaat ci jàngoro bi am si àdduna bi nii automatiquement dina la permettre nga dem jege foofu raxas sa loxo yi ba mu set jël saabu raxasu ba set après continuer waat dugg biir HLM mun a dox say soxla loolu nekk na loo xam ne proximité la bu bu baax tamit si si feebar bi waaw bon marché bi suba la war a tijji suba lañ ko war a ubbi mais commerçant yi li ñuy wax noonu di ñaxtu noonu loolu xam nga liggéey am-am su fekkee nga am fekk tamit wéroo tamit loolu musiba la wér-gu-yaram moo gën lépp loo gis doomu aadama wér-gu-yaram ngay njëkk a jiital ba pare leneen li ci topp yëpp yàlla yàlla yàlla dina ko saafara bu ne mais wér-gu-yaram mooy priorité parce feebar bi transmission bi moo garaaw transmission moo garaaw parce que ba léegi ñoo ngi wax ay cas porteur ay cas kii loolu moo moo xaw tiital nit ñi marché suñ ko boolee ubbi ko te marché bi nit ñi dañuy jegeyantoo cantine yi dañu jegeyantoo bool ko population bi dafa jaxasoog marché bi ñiy jóge fële di ñëw yëpp dëkkuñu biir HLM genn wàll gi fi liggéey yëpp dëkkuñu biir HLM donc nit ñi di ñëw di jënd su ko si am kii day jaxase marché bi mun na mun na ko transmettre ñëpp parce que nit ñi dañ jaxasoo cantine yi dañ jegeyaantoo dañuy dugalante di demalante kon man j'aurais préféré su dee loolu rek la moom marché bi dañu war a prolongé waat tëjaat ko encore prolongé waat date bi ñu tëj parce que wér-gu-yaram moo gën loo gis. moom laay wax ni teel na trop trop trop trop parce que date bi maire bi joxe tey la woon dimanche bi la yem. léegi suba lañ ko war a ubbi su doon sama sago dañ koy prolonger au niveau de ministère de l'intérieur préfet Dakar dañu war a prolonger tëju marché HLM bi yóbbuwaat ko beneen 10 jours encore tegaat ko ci kawam ba nga xam ne lépp dina parce que xam nga cas porteur yi moo garaaw cas porteur su amee nga ubboole ko marché HLM mooy bokk na ci marché yi gën a populaire ci Dakar soo ko ubbee marché yi ñu tëj yëpp. jaaykat yu ndaw ambulant yu ndaw yëpp dañuy daw si ñëw fii marché HLM dañuy daw si ñëw si marché donc yaa ngi mettre population bi en danger yow da ngay mettre population HLM en danger parce que suñu tejee marché marché Grand Yoff tëj marché Thiaro yi tëj marché Tëngéej ñooñu ñëpp booy jaay foofu yëpp suñu yégee ne marché HLM suba day ubbi suba férié la peut-être mais mardi dès mardi rek marché HLM day fees dell kon loolu yaa ngi mettre sa population en danger man su doon sama sago dañuy tëj marché HLM ba si kanam ba mu wóor na ministère de la santé ak ministre de l' intérieur joxoon nañ ndigal ni marché yi léegi mun nañ nekk en activité ñu nekk en activité parce que marché la boo xam ne li ëpp lu muy jaay ay tissu lay nekk ak ay effet ak yooyu lay nekk donc du nécessité boo xam ne au jour au jour nit ñi dañuy ñëw jënd fi lekk wala lool non non tissu la ñuy jaay ay ak yenn effet yi ak yenn kii la ñuy jaay moo tax waaw non xam nga maire bi moom fu mu nekk nii ñun ñun ñun dañu am président délégué de quartier dañu am président donc moom suy waxal président lay wax parce que ñun fu mu nekk nii xam nga regroupement bi dañ koy ter parce que mënoo woote réunion président bi mënul wootee réunion lu mu am rek moom daf koy jàllale au niveau des délégués de quartier 17 délégués de quartier yëpp lay woo ku nekk mu ñëw mu jox la information tàppe affaire yi jox la pour mais maire bi moom waxuñu dara ci mbirum marché HLM waxtaanuñ ci mbirum marché HLM wala kii. waaw loolu xam nga ceeb beeg diwlin bi mooy ndimbal bi jóge si état ak ndimbal bi jóge ci mairie HLM loolu maa ngi profité sax lancé waale benn appel aux populations des HLM suba lundi à partir de 10 heures dañuy ñëw commencé def sensibilisation au niveau des HLM 5A dinañ am ay ndaw yu ñu yabal ñu ñëw def sensibilisation HLM bi yëpp. pour population bi tamit nañu xam ni délégué de quartier Babou Cissé am na ay ndaw yu mu yebal ak conseil municipal am nañ ay ndaw yu ñu yebal pour ñu ñëw de sensibilisation sensibilisation boobu nañu ubbi buntu yëpp dalal gars yi waxtaan ak ñoom parce que pour ndimbal bi jóge si état bi ak ndimbal bi jóge ci commune mairie bi pour nu ñu xool nu koy distribuer ba ku nekk jot sa wàll nga xam ne du am benn problème loolu suñ si boolee nag yenn yi day indi jaxasoo mais nañu boole yaatal recevoir gars yi waxtaan ñoom question yi ñu leen di laaj ñu tontu leen ci question yi ñu leen di laaj ñëpp ñi dëkk HLM mooy ñi nga xam ne seen dafa d'identité dafa adresse HLM moo fi nekk ñooñu ñoom la ñu war a recenser population HLM 5A ñoom la ñu war a recenser pour ku nekk nga xam ne sa ndimbal su dee fii nga dëkk famille bu nekk jot sa ndimbal famille bu nekk jot ndimbal bi état bi yónnee ak bi mairie bi yónnee famille bu nekk jot sa ndimbal priorité mooy famille famille dëkk biir HLM parce que munoone ne famille dominée wala famille kii parce que ndimbal bi ñëpp ko soxla ñëpp ñoo ko soxla ndimbal bi priorité mooy yi dëkk biir HLM nekk sama euh, parti HLM cinq a yeneen délégué de quartier yëpp def nañ seen recensement mais man suba laay commencé def recensement yi à partir de 10 heures incha allah dinañ dugg ci kër gu nekk. famille bu nekk dinañ la laaj question yu ñu leen laaj nañ tontu gars yi si question yu ñu leen laaj ñu remplir ko si fiche bi après dañ koy yóbbu au niveau du mairie mairie yóbbu ko préfecture suñ ko valider nag à partir de foofu nag su ndimbali ñu si nañ commencé nag ku nekk sa sa tur ak sa numéro téléphone dinañ la woo nga ñëw jël si sa ndimbal incha allah. waaw xam nga li gars yi di wax la rek ñëpp xañ nañ si mais du ñëpp la ñuy joxandoo du ñëpp la ñuy joxandoo. parce que mairie bi au niveau du mairie rek jox nañ deux cent cinq deux cent vingt et quelques millions la ñu génnee boole ko sans compter li état bi war a indi loolu su ñëwee ñëpp xañ nañ mais du lépp ay ñëwandoo day am pàcc-pàcc day am parti bi ñii ñooy jot après beneen kii beneen tranche ñëw ñii tamit jotaat seen wàll mais bu neexee yàlla fas yéene nañ jox HLM bi yëpp ak mairie bi fas yéene nañ jox HLM bi yëpp si ndimbal yi. non ñii kër yi. mooy man ñi ma tànn parce que man sama sama sama gox am naa presque set conseil municipal sept conseil municipal yooyu am na représentant imam ak représentant mouvement yi nekk si HLM ak représentant santé santé bi fii sama gox ñoo ñëpp dañ leen jël séddale leen ak ay ay xale yoo xam ne ay bonne volonté lañu pour ñu ñëw jàpp si liggéey mais ku ci nekk di nga gis ni délégation bii di ñëw di nga ci ràññee nit ñi ni ñii ay kilifa lañ biir HLM ñii ay ñii si commune bi la ñuy liggéey ñii ay kilifa lañ ñooñu soo leen gisee di nga xam ne ñii dañ ñëw pour recenser incha allah. waaw xam nga loolu moom loolu moom dañuy njëkk a commencé sant yàlla tey ñaan yàlla yàlla na fi yàlla jëlee feebar bi nu mu gën a gaaw pour doomu aadama ku nekk delluwaat si sa activité normal ku nekk delluwaat si say bëgg-bëgg normal parce que fu mu nekk ni feebar bi tënk na ñëpp ñii nit ñi mënatuñu demlante nit ñi mënatuñu dox yenn yi liggéey normal sax mënatoo ko def parce que léegi liggéey da ngay dem ci service sax fekk ñu wàññi nit ñi am mais feebar bi dañuy ñaan yàlla yàlla jëlee ko fi nu mu gën a gaaw taxawaayu sénégalais nag moom moom day commencé si kaw ba si suuf parce que ñi ñuy jiital ñoom ñooy war a taxaw taxawaay boo xam ne comme li am nii jamono juñ toll nii li nekk nii suñ ci taxawee rek dëkk bi nii la war a doxee dëkk bi nii la war a dox respecté ci constitution yi. respecter nit ñi respecter transport bi parce que lii am nii si transport bi nii loolu mais lépp lii Sénégal yëpp moom lañ doon ñaan yàlla organisation moom lañ ñëpp doon ñaan yàlla far balaa bii nag ñëw indil ñu forcé ñu organisation forcé ñu yenn nuyoo yi na ngeen ko bàyyi forcé ñu yenn regroupement yi na ngeen ko bàyyi forcé ñu soo leen di dugg si oto oto bi su feesee jaru ngeen ni lang oto force ñun soo demee foo mun ti dem soo fekkee ay nit taxaw da ngay rang taxaw si ginaa ngeen def un mètre loolu moom idée bu baax la te solution bu baax la tamit fii la Sénégal war a jaaree rek jaaree fa ñu defaru jubantikuwaat xoolal léegi mbedd mi sooy doxee si mbedd mi xoolal léegi nu mu mel rek da ngay nit ñi dañuy dox normal amatul buuxante amatul fëlante amatul dara nit ñi dañuy dox normal yow da ngay gis nit ku ñëw sax danga nga koy moytu di nga dox normal da nga koy moytu te doo doo leen laalante séddale bi séddale bi ñëppay tolloo ñëppay tolloo parce que xam nga séddale état amul kii mooy am lii amul kii mooy am lii ñëppay tolloo mairie bi tamit loolu la ñu wax ni ñëpp ñooy tolloo ku si war a am rek da nga ciy am ku bokk si commune HLM 5 HLM bi yëpp ku bokk si commune HLM soo si waree am rek da nga ciy am parce que recensement yi pour loolu la pour ñu xool identifier ñi dëkk si commune bi parce que xam nga tey mënoo identifier koo xam ne beneen commune la dëkk nga jox ko su demee commune am ñoo ñu joxaat ko kon kooku day bénéficier wu si ñaari commune même su fi dëkkee tam te adresse am nekk Castor kooku waa Castor ñoo koy jox su fi dëkkee adresse am nekk HLM wala mu dëkk waaguñaa adresse am nekk HLM waa HLM ñoo ko war a jox loolu mooy yoon parce que man tey mun maa jox koo xam ne waaguñaay la dëkk wala mu dëkk Castor ma jox ko bàyyi ko dëkk HLM su demee commune Castor waa Castor joxaat ko tamit kon kooku moom Euh, séddale boobu jaaru yoon mais séddale bi moom ku dëkk commune HLM la ñuy jox ku sa adresse nekk HLM la ñuy jox déggoo lu mu la mat bi moom yàlla rek a matal lépp mais li ñu fas yéene ñaan ko yàlla yàlla na mat parce que su état bi joxee su état bi joxe li muy joxe ndimbal li muy joxe pour mu ñëw si commune HLM commune HLM génnee ndimbal deux cent et quelques millions ah sama yaakaar yaakaar naa ne dina mat yaakaar naa HLM ñëpp dinañ si gis seen bopp ah di xanaa di ñaan yàlla rek feebar bi jóge fi di waxaat waa HLM di waxaat sama gox HLM 5A man délégué de quartier maa leen di yëgal ni suba dinañ commencé recenser HLM 5A recensement bi nag dina am ay kilifa yu ñu àndal du ñuy def groupe nag mais par pàcc lañ koy def dafa am ñeenti pàcc yu ñu ko séddalee dafa am zone rouge zone bleue. ak zone ver ñooñu dafa am groupe bu nekk dañ leen séddale ñii ñooy dem fii ñii ñooy dem fii ñii ñooy dem bu subaa 10 heures su jotee bu neexee yàlla ndaw yi dinañ wàcc sur le terrain ñëw dugg ci kër gu nekk ñu nekk dinañ la laaj am na ay fiches yu ñuy remplir ku nekk dinañ la laaj sa tur ak sa numéro téléphone ak adresse su kër bi suñ ko remplir ba pare si la ñuy dajawaat fii ñëw ñu xool évaluer ñaata maison ñoo fi nekk ak ñaata numéro kër ñoo fi nekk yàlla. feebar bi yàlla na fi jóge yàlla na fi yem ñi ko am yàlla na leen yàlla may wér ñi ko amul yàlla bu mu leen dal yàlla na yàlla sàmmul suñu njaboot sàmmul gox bi yëpp sàmm àdduna bi yëpp sàmm sénégalais yëpp si barke Seydina Mohamed ba feebar bi jóge fi ñun ñëpp ñu mën a doxi suñuy soxla nuñ ko bëggee woon incha allah. waaw léegi moom laa lay expliquer ni fii mooy garage Guédiawaye fii la HM5 a commencé moo jëm ni fii man maa fi nekk gox bi man Mambi Diaw imam Daouda Thiam ak Marie Madeleine ak ñeneen fi lañ commencé mo dem ni gaara Guédiawaye bee mo nek ni mo ñëw ni ba fi fi moy ancien police ancien police à partir de ancien police bi lañuy dugg dugg dugg dugg dugg ba fi mom lañuy yegg ni ba fi ñëw ni ba ci poste bi fi à partir de poste bi lañuy ñuy ñëw nii fi fii yëpp man may couvrir fi yëpp demee demee incha légui léegi à partir de fi nak boulangerie bi à partir de boulangerie bi jëm jëm ci kaw jëm jëm ci kaw mel ni kuy dem commune case des tout-petits fii Medoune Deme pa Medoune Deme conseil municipal moom moo fii nekk moom tës vieux sow tës ak ñoom Abda ñoom ñooy nekk zone bi ak ak Matar Matar Faye ñoom ñooy couvrir à partir de fii gisoo man bi ma yemee fii bi ma ñëwee ba ci poste bi dama ñëw continuer tout droit ni immeuble moo nekk nii immeuble immeuble A six immeuble ñoo nekk nii man fii laa yem ci tali bi nii ñoom ñooy commencé si boulangerie bi jëm nii booru Case des bi jaar nii si kanamu jàkk ji ba fii ñëw nii ba nii wàcc si niwaat nii dellu siwaat si man fi ma yemoon ci côté poste bi ñoom ñooy couvrir fii beneen bi fii à partir de ancien police bi fii dugg nii tali dugg nii ba ci poste bi jëm jël boulevardu marché bi marché HLM wàcc si nii wàcc ba ci deux voies HLM HLM ak HLM 6 wàcc si ba ci Ahmadou Bamba bi fii Kër Dora bi ancien police zone bi mooy zone bi nga xam Gata Gata El Hadj Sangaré Assane Bari Bamba Bamba entraîneur ñoom ñoo yor zone bi ñoom bu subaa ñoom ñooy ñëw zone bi def sensibilisation bi relever gars yëpp ñëpp gisoo kër yëpp gis nga kër yëpp seen numéro kër yooyu ngi si kii bi plan bi gis nga plan bi nu mel seen numéro kër numéro kër HLM bi yëpp moo ngi si HLM cinq a bi yëpp moo ngi si moo ngi si gisoo lii yëpp ku si nekk am na kër gu nekk am na numéro këram numéro kër yaa ngi nii fu mu nekk nii léegi lii day tax daf ñuy gën a yombalal mbir yi daf ñuy gën a yombalal mbir yi ça que léegi ku nekk sa zone fii ngay cadré fii fii fii man délégué de quartier Babou Cissé fii Medoune Deme conseil municipal Gata ak El Hadj Bamba Assane Bari ñoom ñoo nekk zone bi mooy ñeenti ñetti pàcc yi zone rouge jaune bleu ñoom ñoo nekk ni ñoom la ñu kii suba sensibiliser ñëpp ñu ànd incha allah bu neexee yàlla si lañ fas yéene jubal